asalaamaaleykum yéen internetu Hann TV man Bassirou Gueye ethnobotaniste ci biir parc forestier et zoologique de Hann maanaam euh, li nga xam ne mooy xam-xam bi lëkkale gàncax gi ak doom aadama yi mala yi ak njaawnaaw yi ak jaww ji euh, ma di xaar ci émission bu bees bi ñu leen di defal ñu ñu war cee jàng jàngale ci wecce ci ay xalaat kenn ku nekk xam lum mu ci ci gàncax yi nga xam ne moo fi nekk ak ci biir adduna bi yëpp ci liñ ci am ci gàncax ak kenn ku nekk ca fa nga féete kon rendez-vous baa ngoogu wasalaam